Macky Sall dafa demoon aéroport di di voyager mook soxnaam benn compatriote bëkkanteeg moom ci avion bi indil ko coow ne ko assassin nga mu indi xuloo seen diggante moom ak Marème Faye Sall ñu koy jokkalante affaire bi nekk benn tole boo xamante ni <clears throat> lu gën a metti ñenn ñi nekk ci opposition bi lenn la mooy que ministre des affaires étrangères dafa génne benn communiqué ne dinañ défendre compatriote bi mais tudd si tudd si Macky Sall léegi ñii di xëccante ki ñii naan dañoo waroon défendre dañoo waroon défendre Macky Sall. en tant que aussi chef de l'État ancien chef de maam loolu ay maam cest à man lu ma si wax du bëri ndaxte je loolu mënut a ñàkk yaa ngi dégg parce que moom même dee président la woon tamit maam moom day politique. te def ay actes yoo xamante ni am na ñu mu blessé ñu bari. te ñooñu loolu sedd seen xol seddagul ndaxte bu diggante Pastef ak pouvoir bi xëccoo boobu juróon nañu ñu bari seen bakkan rot ñeen ñi nag nee nañ bi la ñeen ñi nee waa Pastef la léegi nañ leen bàyyi ñoom ku ne jiñ ko sa morom <laughs> mais lépp solo mooy que am na si ñoo xamante mhm. si ñoom dañu peuple bi nee nañ euh, <laughs> ne na koo <laughs> ah, ah. mais mais élection yi la wane waaw mais mais mais li si am solo mooy am na ñoom naqar gi dañagul ci ñoom kooku damay jàpp ne dafa am lu ko naqari ba léegi mu gisee Macky song ko wax ak moom loo xamante ni rafetul mais tamit ministre des affaires étranger tamit communiqué bi tamit wax dëgg yàlla. Mhm. maanaam c'était pas équilibré quoi mënoon na ne carrément dinañ défendre. suñu compatriote bi mais tamit ñaawlu tamit lu mu wax Macky Sall quoi mhm. donte. mag yi lu mu fi def tamit dëgg la ba léegi yàggul dara neexul kenn dëgg la moom mais nag en tant que chef de l'État d'un pays comme le Sénégal nga wàcc ci nguur gi maam foo mënti dem sa rang dañ ko war a respecté daal maam ak ku la mënti song ku mu mënti doon yoon la état du Sénégal taxaw jël sa dépense man noonu laa ko gisee quoi en mm-hmm, mm-hmm. merci beaucoup Abdourahmane <coughs> Sadio Fati damay daal di jublu si yow par rapport ak comme ni ko Abdourahmane waxee gis nañ ministère des affaires étrangères daal def benn communiqué lu ni mel aussi daloon nañ si ak Guy Marius Sagna aussi tëdd par rapport ak problème bi am. Euh, fi Abdou daanelee laay tàmbalee d' abord ñaari sénégalais ñoo jote. Mm-hmm. hors territoire Sénégal ñi fi mu xewee ñoom ñoo réagir jàpp ci kenn ki. Mm-hmm. li tax ñu jàpp ko nag mooy statut président Macky Sall dafa am statut ancien président également d' après les propos yu Marème Fa euh, Marème Faye Sall wax am ñu ko reprendre mooy que ni femme bi da doon interpeller Macky si euh, li fi xewoon maanaam ñi dee ak arrestation yi ak tout ça. Mhm. di ko laaj ndax moom moo def ba pare d'après toujours propos Marème fay Sall femme bi da doon wax bay dépassé moom mu jug da doon wér di jug tontu ko. alors loolu jàngat bi ñu ciy def mooy d'abord euh, premièrement Marème Faye Sall nee na Macky Sall amul protection fi mu ne nii. amul benn protection comme ni gars yi waxoon peut-être dañ ko war a statut ancien président je sais pas si c'est avéré peut-être dina ñëw mhm. dafa war a am ñoo xam te dañ ko war a jox garde corps wala tout ça mhm. mu protéger mhm. deuxièmement mooy lii àdduna àdduna fu mu toll ni lu mel noonu mënuñu koo bañ àdduna moo toll foofu maanaam peut-être Sénégal boo fi nekkee mun nga am yenn kii mais boo génnee bitim réew fi nit ku nekk benn nit nga te nit ku nekk am nga sa liberté d'expression boo demee États-Unis da ngay de gis ay nit yoo xam ne dañuy dem taxaw ci ci kanam maison maison Blanche di di di wax li leen ne Macron gis nañ ko fi nit mbéj ko te te te moom ah, mooy woon am statut président de la République gis nañ fi nit mbéj ko donc nit ki boo génnee am nga droit Sénégal laa laa xam ne ni ku fi génne naan da ngay dal président wala dootoo dootoo ko defati mm-hmm. mais àdduna feneen toll nañ foo xam ni am nga sa liberté d'expression boo xam ni nit ki mun nga ko sans violence sans nga laal ko mais war nga ko mun a interpeller mhm. léegi nag mooy ki mu concerné le président de la république mhm. parce que ba léegi dafa am benn euh, benn grade boo xam da koy da koy da koy dundaale ba nu muy génnee àddina mooy ancien président de la république du Sénégal ak nu mu munta demee dañ ko war a jox cër boobu noonu li Abdou wax aussi foog ñu bàyyi ci xel femme bi est-ce que amul nitam bu ñu rey est amul est amul bokkam boo xam te ni bokk na ci affaire yi ñu mutilé ko xam ne nit koo xam te par exemple dañ rey sa doom wala ñu rey sa mbokk si mm. condition yoo xam te dafa atroce booy génnee émotion buy nekk si yow doo ko tey mm. kamikaze yi nga fi daan gisee yëpp si dëkku arabe yi c'est juste parce que mm. nit dina am foo xam ne bu ci tolloo dootul mën a contrôler boppam donc yooyu c'est compréhensible dans tous les cas je pense que waa ñoom dinañ ci gën a dinañ ci gën a nekk à l'aise pour wax. Mhm. beneen bi mooy communiqué ministre ministre ministre ministre des affaires étrangères Yacine Fall bi. Euh, li ñëpp constaté moom lañ constaté mooy Macky ak lu mu ti demee ancien président de la république. certes mun nga défendre compatriote bi mais au moins na benn compassion bi nga xam ne ni dinañ ko dégager. parce que communiqué bi munoo koo liir ak ba gis benn benn paragraphe wala benn phrase bu ndaw boo xam peut-être dañuy massawu président bi wala di ko wax loo xam ne. lan lañ def mooy dañoo wax sunu compatriote lañ arrêté fële. jël nañ avocat pour mu defendre tout ça relater les faits mais amul lenn loo xam te ni compassion la te loolu wax dëgg yàlla Macky mérité wul loolu. jaajëfal nañ la Sadio Fati dañuy daal di euh, dem si sunu invité bi Cheikh Taïb Fall naka nga jàngatee mbir mi nga xamante ne ñu bëri ñaawlu nañ ko ndax sax ñi ngi naan bu doon sax sunu président Diomaye wala premier ministre lañ defoon lu ni mel dina dina gën a jur lu lu gën a tàlli mais ñaawlu nañ ko nag yow naka nga si jàngatee. waaw affaire bi dafa am ay dimensions Euh, jàngat aussi da ngay jàngat. sincèrement ñun dugguñu ci par euh, ci biir Pastef dafa am ay doomu daara. ay sëriñ kuréel boobee lañ jiite. kuréel boobee nag bu Pastef doon jàdd yoon ñoo war a taxaw ni leen nangam jiitu nangam jaaduwut. nekkuñu ci ay par parloon mais dafa am ñetti niveau ci jàngat. benn niveau bi. Mhm. mooy imaginer loolu dal Macky Sall ak soxnaam. bu daloon Ablaye bu doon Ablaye Wade à sa place. ak soxnaam. surtout walla muy Abdou Diouf à sa place. da nga xam ni kon fee boobu du mës a am Ablaye Wade bi mu wàccee Sénégal dañ ko dañ ko teeru comme réew comme roi. dëgg loolu dëgg. Mm-hmm. du juuf tey bu génnoon boo ko gisee boo doon dox sa soxla dangay ngay dagg sa soxla ñëw nuyu ko mm-hmm. avec tous les respects. Mm-hmm. lan moo tax ñii ñëpp. am respect boobu ci sénégalais yi te Macky Sall amul respect boobu ci sénégalais yi c'est une question lan moo tax ñuy wax Macky Sall ne dana ñëw campagne ñeme na ko wala ñemewu ko baat boobu la ñuy wax ñeme na ko wala ñemewu ko lan moo tax ci bitim réew marok benn sénégalaise simple boo xam ne nii dafa par coïncidence dajeeg Macky Sall ñeme ñëw song ko ci façon bi lan moo tax ça veut dire que bu ñu waxantee dëgg Macky Sall dafa def trop de mal aux Sénégalais. kon su ma la déggee Macky moo liggéey li. non euh, am na man am na fu may fu foo xam ni Macky la liggéeyam la. Mhm. am na foo xam ne nii man jàpp naa ni warul demee noonu ci côté ministère des affaires étrangères. Mhm. am na foo xam ne journaliste lii ñoo ko taw yóbbu ko fu mu àggul. Ah, bon fi nga xam ni benn fi nga xam ni. Mhm. Macky Sall la. mooy ku bañ ñu fay la sa bor da ngay liggéey lu rafet ku ñu fay sa bor nga mer la nga liggéeyee rafetut un président de la république bu génnee pale nekkatul président su defan la mu war a def ak héros lay doon ci dëkk ba bu génnee dañ ko war a tàcc parce que servir na réew mi ci façon bi gën a kawe mais su génnee ñu naan ñeme naa dox fii wala ñemewut a dox fii ça veut dire que foofu man nga poser question lan moo nekkoon gestion lan la yàq kan la gaañ lan la def pour peuple bi di am gis-gis bi ci yoon muy benn ñaareel bi communiqué bi ministère affaires euh, étrangères def soxna Yacine Fall maa ngi koy nuyu sama jigéen boobu communiqué bi mu def artewul ni waa Pastef bi dafa nekk ci dëkk Macky Sall nekkul ci dëkk non Macky Sall kenn jàppu ko kenn arrêté wu ko moom mi ngi wax soutenir ki ñu arrêté y a un sénégalais bu ñu tëj tëjuñu may Marème Faye Sall tëjuñu Macky Sall moom mi ngi soutenir ki ñu arrêté léegi nañ xoolaat communiqué bi ngir yàlla mais may ma may ma rek damay wax li li am yow yaa jaar nga ci léegi communiqué bi li ñuy man li ma wax hmm. amul benn phrase boo xam ni dañuy masawu Macky Sall non d'accord fa laay fa falaay waxee ko en fait man foofu danaa fa agsi waaw continue foofu danaa fa agsi communiqué bi dafay wax ni danañu taxaw jël avocat jàppale. kiñ jàpp kiñ jàpp. donc moom dafa viser jàpp gi jàpp gi ci benn côté rek la am amul ci ñaari côté dëgg loolu dëgg ñaar ñu doon ñett ñu doon xuloo kenn lañ ci jàpp donc l'autorité sénégalaise ni dana taxaw ci wetu ki nga xam ne dañ koo jàpp ci ñett ñu doon xuloo mais attewul attewul waxul ni ki nekk ci Pastef. non loolu d'accord nañu mais fee bi laa wax fee bi dafa léegi non man dama bala maa indi bala maa wax damay man bu amee communiqué. am un texte administratif. texte boobu dañu respecter li mu wax ba pare. waaye wala bu ñu waaye waaye waaye bu ñu chargé texte bi. texte bi dañu jàpp ne daa am lu ci manqué. waaw xam ne texte bi li nga wax ni ñu ñëpp d'accord nañ ci. mooy. jëlal avocat mais d'accord loolu d'accord nañ. li ñu d'accord nañ ko avancé affaire étrangère affaire waaw déglu affaire étrangère du justice bu doon justice sax du nekk justice Maroc parce que Maroc ab dëkk la bu am souveraineté bu toll ni bi ñu am affaire étrangère les sénégalais de l'extérieur bu ñu amee jafe-jafe muy Libye muy Maroc muy fu mën a doon dañu war a intervenir pour génne leen ci xat-xat boobu foofu la ñuy waxee bu ñu waxee foofu ba pare Guy Marius Sagna dañ ko blessé dañ ko agressé. <laughs> Ah, waaw d'accord ñëwal ci xeet gi léegi léegi léegi léegi. xam nga man li ma bëgg a dégg en fait mooy. xam nga man d'accord naa ni communiqué bi ah, am d'accord. am drame du nekk sama porte parole ba pare man may nekk kuy daw débat. imam Dramé imam Dramé donc <laughs> bu ñu toogoon waxumala ak man nag du ma naw <laughs> débat mais mais dafa am lu ma bëggul lu ma bëggul ñu wanaasu ko te du dëgg lan la ci mooy jàpp ni communiqué bi dafa ñëw farak benn sénégalais boddi benn sénégalais waaw loolu lay la waaw loolu nag pour pour pour pour indi ko da ngay indi fee bi tax communiqué bi génn ak communiqué bi mu ñëwee fu lu mu visé mooy soutenir un sénégalais en détention à l'étranger mais imam léegi imam léegi nag mu mu des léegi lan moo li nga xam ne man. su ma doon def communiqué bi naa ko wax. mooy maa ngi massawu le président Macky Sall. voilà loolu lañ bëgg su doon def man. parce que nee naa la nee naa la. nee naa la man su ma doon def. man su ma doon def man su ma doon def communiqué dinaa wax maa ngi massawu l'ancien président de la république. monsieur Macky Sall ci incidence boobu. Mm-hmm. Mm-hmm. su ma doon def communiqué bi. lan moo tax ministère des affaires étrangères defu ko xamuma liggéeyuma fa. xooma ah xooma peut-être mais mais xooma mais li ma bë li ma mën a wax. Mm-hmm. man dama lay wax ni. Pastef rek mooy parti boo xam ni suñu jàppee ni lii waroon a nekk dañ koy wax publiquement wax ko ci suñu biir ñun duñu parti ragalante gannaaw de mosoo dégg benn affaire bu taxaw naan. waa Macky Sall lu ñu wax du kii man dama ne la su doon maay bind communiqué bi soxna yaa d'accord nañ la ko li mu def danaa ko def danaa soutenir danaa soutenir un sénégalais en détention à l'étranger mais danaa wax ni danaa ci bind ni maa ngi massawu maa ngi massawu le président de la république bu boobaa président de la république monsieur Macky Sall l'ancien président uh-huh. la mu def ak la mu kii kooku dañ koy bàyyi ak le peuple sénégalais. mais monsieur Fall may ma question foofu tamit ni nga ko waxee léegi yéen waa Modab nga xam ne yéenay kilifa Pastef est-ce que tamit jël ngeen initiative bu ni mel wax ne soxna Yacine Fall. Euh, déedéet déedéet. ah waaw mais comme te nee nga loolu ngeen pour lan lu koy jël yow yow yow yow yow yow euh, mooy li may wax ci journaliste bi ngi nii. Ah yow yaa toog ci sa xel ni bu ma nii bu doon man lii maa koy def dinaa ci def lii. amul benn communiqué bu nit dul def bu ñun ku toog ni man mënoon naa cee def lii. amul benn communiqué wala benn affaire bu dul ab sénégalais mën na wax ni nangam bu ma ko doon def danaa ci def nangam nga bëgg ab ministère moom di déglu sentiment de sénégalais pour mu def loolu déedéet affaires étrangères ministère la ay service ñoo fa nekk ay experts ñoo fa nekk ñoo xam ne la ñu yor seen matière la la ñu bind tey bon naa am boo toogoon ak ñoom ñu expliquer la li tax ñu defee ko nii mën naa am yow dootoo waxati Euh, euh, euh, ah. monsieur Fall man li ma ca bëgg a yokk uh-huh. effectivement man damay rafetlu hmm. posture bi mais dama ni la man waa doon man waaw d'accord <laughs> waaw leeral bi leer na <laughs> waaw leer na en fait li mu wax nii nii d'accord naa ci mais personnellement attaqué na journaliste yi ñu wax ñu fàttali journaliste yi ah, defuñu lu dul relayer les faits nu mu demee amul kenn ku ci yokk ki bind papier bi dafa ne ma Marème Faye Sall la woo Marème Faye Sall lii ak lii la ko wax expliquer ko les faits gars yi loolu lañ jël reprendre beneen bi mooy li may ah, rafet. journaliste bëgguñu fee xam nga luñ bëgg. non ah, déet bu ñu accusé. commentaire euh, non fee ñun. xam yéen non xam bu doon yow dama la naan yow sa turu bopp. Ah. mais boo gisee ma ni les journalistes. non xam par exemple dafa am dafa am. en réalité Sénégal. Hmm. Euh, man ngaa wax opposition sax amu fi. Hmm. ay journalistes opposants ñoo fi am. déedéet déedéet c'est-à-dire xam nga lan. dañuy jël benn fee monsieur lenn am na lenn am na. yaa a des journalistes man bokkuma ci. non d' accord lenn am non non non lenn am na y a des journalistes y a des chroniqueurs y a des politiciens yoo xam te ils se ay politiciens encagoulés la ñu mais jour mosoo gis journaliste boo xam day day jël parti pris ci affaire yi donc loolu moom boo amee nga tëj beneen loolu détail la beneen bi mooy li nga wax man li may rafetlu mooy le fekk que nga nangu ni que ni communiqué bi. am na lu ci manqué. déet waroon na ko yow c'est-à-dire. non da nga wax implicitement loolu nga reconnaître. non xam naa li nga wax d'accord daa bàyyi ma daaneel. sama wax maa ngi nii dama ko <laughs> maa koy wax dama ni su ma su doon man. waaw loolu ngay yow ni nga nekkee sénégalais. Eh, eh. kii nekkee sénégalais man na ni sentiment tel mën naa ko cee dugal. man su doon man sama sentiment may bind loolu. lii laay wax mais j'ai confiance. à ministère des affaires étrangères. autrement non. mais d'accord ngeen ni parce que implicitement d'accord ngeen ni parce que parce que man. d'accord ngeen ni ah, ah. dugguma seen biir service xam nga xam nga maandu tam dafa baax. maandu ta xam nga maandu mooy lan li nga man te percer dugg ba ci biir man liggéeyuma affaire étrangère xawma niñ ko liggéey yan baromètre lañ sukkandiku ba wax lii xawma ci yan yan yëf la ñu def donc mënuma ñëw. léegi man ma ma yokk nekk benn simple citoyen. Mhm. ak lu ma am responsabilité politique politique ma ne nag di boo euh, texte bii nii lañ ko waroon a bindee loolu man. oo ma sañ yow man naa wax nag sama sentiment. en tant que sénégalais. d'accord naa d'accord naa sama sentiment mooy su doon man danaa ni. danaa ni su man danaa ni ñu ngi massaw l'ancien président Macky Sall ak soxnaam. ci incidence d'accord moom la la gis nga li nga sentir ni Abdourahmane moom chose la wax. ma mënoo même chose la boo xoolee majorité sénégalais am na nañu wax la ne waaw non bokkuma sénégalais ah, mais dama ne dama ne wax la ne monsieur Wade dama ne majorité sénégalais li ci ëpp dañ jàpp ni ñaari sénégalais ñoo jote soxna si gënul nekk sénégalais que Macky Sall ministère des affaires étrangères sénégalais yu nekk bitim réew lay défendre Macky Sall sénégalais bu nekk bitim réew lay def aussi donc dès l' instant comme ni nga ko waxee ni def communiqué femme bi dañ koo tëj dañ ko war a taxaw jëlal ko avocat défendre ko boobu mais Macky Sall kenn ko ndox waaw d'accord ñu ngi ci tëj bi <laughs> non fee na porter plainte femme bi mais dafa ko. pour violence ah. mais da nga naan dafa ah, mais le problème mooy. mooy communiqué bi tamit communiqué bi li ñuy wax mooy communiqué bi lu mu dee dee waroon naam comme ni nga ko waxee. Mhm. man ma sentir kii sentir sénégalais li ci ëpp loolu lañ sentir mooy nit ku nekk yaa war a fajal sa bopp. 18 mhm. millions de sénégalais bu ci ku nekk jug naan da ngay fajal sa bopp. Ah. ma maa la day am nañ justice. annoncé nañ création yooyu cour euh, cour ak yu demee noonu Macky Sall sénégalais yee ko dénkoon wàcc na am na lu mu fi def baax na am na lu mu ci def bon na nañ bàyyi ñi nga xam ne ñoo war a def liggéey bi ñu def ko mm-hmm. mais kilifa dañ koy ormal du ku nekk boo jugee dajak moom saaga ko wala dóor ko après fan la ñuy mujjee mm-hmm. donc fa laay waxee ko moo tax ma ne la damay rafetlu sa posture bi nga wax malgré que ni nangoo contredire ministre bi mais <laughs> ñu bàyyi noonu. baax na dañuy daal di tëj point boobu rek dinañ gën a waxtaan léegi ak suñu invité bi. troisième point bi ñu nar a waxtaanee Abdourahmane maanaam baaxtu contre Sonko Macky contre Amadou Ba de l'amour à la haine gis nañ ne langue politique bi ñu daan euh, ànd démb tey ñoom ñoo noonu wala ñi doon noonoo démb tey ñoom ñooy ànd Abdourahmane naka nga jàngatee lu ñu mel. c'est l'histoire qui se répète temps bi nag nee nañ jeex na ah donc ñu nu ñu mën a gën a tënkee rek li ma ne mm. loolu c'est l'histoire qui se répète. non tënk ko man moom damay tënk rek. c'est l'histoire qui se répète. Mm-hmm. cest à bu Sénégal bu nekkee Sénégal ba léegi. Mm-hmm. maanaam ay nit yu ànd politique dox nañ ba mu yàgg ñu tàqali ko kii dem créer parti kii nekk ci parti bi ba léegi loolu moom mos am Sénégal. am c'est-à-dire de l'amour à la haine ñun Sénégal politique yi loolu lañu ñu tàmmal gis. Mm-hmm. gis nga Abdou Diouf avant muy bàyyi nguur gi ay ñoom Djibo Leyti ay ñoom Moustapha Niasse dañoo génn di ko contre ba nga xamante ne élection 2000 yi ab Djibo Leyti Ka ak Moustapha Niasse ils étaient candidats yaa ngi dégg te PS lañu nekkoon. Mm-hmm. Abdoulaye Wade moom Idrissa Seck. Ablaye Wade Idrissa Seck nee na Ablaye Wade papaam la Ablaye Wade nee na Idrissa Seck doomam la waaye gis nga nu ñu nekkee papa ak doom dañoo dem ba ba ba ba xuloo ba ba xaajaloo ba Idrissa Seck créé parti ba nga xamante ni 2012. Mhm. bu ñuy bëggee daaneel Ablaye réew mi parti réew mi bokkoon na ci candidat yi yaa ngi dégg. nga boo ko boo ko toppee ci chaîne boobu rek. même chose bi mooy répété. kon du lu bees en fait. c' est pas nouveau lii c' est l'histoire mhm. qui se répète. Mhm. Barth ak Sonko bu ñuy fii la seule différence mooy coalition Yewwi dañu ne woon bu ñu defee législative def locale bu ñu demee présidentielle ku si ne da jël sa yoonu bopp. Mm-hmm. balaa ñoo yegg foofu nag ñu am ay xëccoo seen diggante ñu ñu xaajaloo léegi nag élection législative yi jàmmaarloo diggante Barth ak Sonko xaar. Mm-hmm. Macky ak Amadou Ba tamit c'est de simple Amadou Ba moo Macky maam nañ ne. raqu Macky Sall la en fait parce que parti APR la nekkoon depuis 12 ans mu occupé ay postes yu stratégique yaa ngi dégg fu may waxee de ce fait bu demee ba Macky bëgg bàyyi nguur gi donte bëggu ko woon bàyyi nga demee ba ñu xiir ko ci mu bëgg ko bàyyi Amadou Ba la tànn ne moom moo koy remplacer mm-hmm. bu mu defee loolu tamit dañoo jàppoon ne njott bu rafet la mm-hmm. waaye bu demee ba si biir dañuy gis ne Macky Sall boppam moo doon galgal Amadou Ba pour du doon président yaa ngi dégg léegi de ce fait Amadou Ba foofu la commencé en fait léegi nag lu waral Macky doon ko galgal ñun loolu ko mhm. mais li li leer mooy que Amadou Ba ak Macky Sall moom maam tàqalikoo nañ mhm. dootuñu àndati te élection législative yi di ñëw tamit jamais jamais non dama naan dootuñu àndati xamul tax mhm. parce que Amadou Ba dafa bàyyi APR yóbbaale ñu bari lu ma dis loolu sa fait très mal à Macky Sall parce que Macky saal moo créé parti APR par thème la léegi de ce fait maanaam Amadou Ba dafa diminuer seen doole yi te bu ñuy def ay intercoalition gis nga ne Amadou Ba àndut ak ñoom. kon jàmmaarloo bi diggante waa APR la ak Amadou Ba yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaye comme ay ñuy ànd ci politique. Mm-hmm. dem ba mu yàgg ñu ñu xaajaloo. loolu maanaam dafa yàgg Sénégal te gëm naa ne mm-hmm. jugee gu fi. merci beaucoup Abdourahmane euh, Sadio Fati par rapport ak comme ni ko Abdourahmane waxee cent 1960 ba léegi euh, politique Sénégal moom dafa xaw a doy waar tuuti tey man yow dañuy ànd suba ñu xiiroo ŋaayoo euh, mu gis ñu gis ne ci ni mu ci mujj Amadou Ba ak euh, ki nga xamante ne mooy président Macky Sall Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ñu ngi ci ay xiiro naka nga jàngatee lu ni mel. pour bañ a revenir si li Abdou wax. Mm. man côté ay parcours bi laa ko effectivement dafa am benn affaire boo xam te ne je pas ndax ñëpp koy constaté mooy. Mm-hmm. Ousmane Sonko mook Barthélemy Diaz ay doomu ndey lañ woon malgré que réeroo nañ ci politique. Mhm. mais soo gis fenn Ousmane Sonko génn di wax lu ñaaw Barthélemy Diaz. soo gis Barth aussi génn directement attaqué Ousmane Sonko. Mhm. même buy am ay propos de ni ay gaaruwaale lay nekk wala yu demee ne mais gisoo leen ñuy attaquante frontalement. donc élection yi dina dinañ dinañ dina dina leeral bu fekkee. Mhm. carrément réeroo la wala euh, dafa am trahison bu profonde bi nga xam ne ne am na seen diggante. kasaalika pour Macky ak Amadou Ba. Amadou Ba mu génnee ba léegi gisoo ko benn yoon muy attaqué frontalement Macky Sall def na déclaration ak nouvelle responsabilité créé na coalition xëcc na ay nit mais gisoo ko benn yoon muy attaqué frontalement Macky Sall wala gestion parce que ñoom ñaar dafa am fu ñu jaar pendant des années. donc loolu noonu dafa nekk loo xam te ni je pense que am nañ relation yoo xam te day transcender politique. Mm-hmm. parce que sur le plan politique ay jamono nit daan na wax ni que da nga daan gis ay leaders. su plateau ñuy attaqué di nga dem benn bërëb fekk leen fa ñuy waxtaan. donc Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias tolloon nañ foo xam ne Ousmane nekkoon na ci condition yu méttee méttee méttee méttee mais gis nañ Barth dafa jëloon recul toog ba tey jii nii mënoon naa ne régime bi nii Barthélémy Dias mënoon na ci occuper ministère bu rëy wala direction bu rëy waaye. li yàlla def mooy seen diggante nu mu nu mu nu mu mujjee finalement donc loolu comme temps bi jeex na ñu bàyyi monsieur Fall mu développé ci loolu monsieur Fall ñu bàyyi la nga développé rek comme ça après ñu soog a dugg ci suñu xamante ne mooy sa mouvement bi par rapport ak euh, ni ma ko waxee euh, gis nañ fi ay mburu ak soow caaki rek soow ak façon bu nekk mais ci tàggalikoo la ñuy mujj ba ci ki nga xamante ne mooy Amadou Ba ak président Macky Sall ak seen njiit di Ousmane Sonko moom ak Barthélémy Diaz waaw man sama gis-gis ci politique te mooy gis-gisu bi ma àndal di waa Modab doomu daara yi mm-hmm. mooy duñu xuus bu baax nag ci yëfi jàmbur yu ñu xamul mm-hmm. euh, ñaari yëf moo tax benn bi mooy xale yi nekk suñ gannaaw di suñuy doom ñu respecté leen nee nañu ñu focus. Mm-hmm. ah da euh, te na leen respecté parce que parce que uh-huh. doom bu respecté bàyyi bu respecté doomam daf koy jox sañ-sañu mu donn kër gi. Euh, nañu focus suñu mbir mm-hmm. euh, ñaareel bi mooy ñun li ñu doon metti ñu ni Ousmane Sonko trahir na diw su boobaa la c'est une question mm-hmm. ñu mën ci wax te njàmbaar lañ ciy waxe dëgg lañ ciy waxe Ousmane Sonko ci boppam dañ koy dut baaraam ñun Pastef parti lañu boo xam ni xamuñu par parloo man mosuma koo gis maa ngi siège biro biro politique mais dëgg dañ koy wax ku nekkul ci dëgg dañ la naan nekkoo ci dëgg loolu la gaa ñi amul woon démb loolu nag ñu bari comprendre ñu ko ci ñun. buñ ko dee def dañ naan diw de mi ngi xas diw te ñoo ànd parce que xamuñu Sénégal xamuñu nga bokk ak nit parti ba pare ni d'accorduma ak moom loolu Sénégal xamul Ousmane Sonko su fekkentee ni dañu xool parcours politique am ñu ni dafa trahir diw su boobaa la c'est une question pour ñun bu ñu war a régler. ci suñu biir tontu ci bañ ko régler ba pare waaye su fekkee dañuy wax ni Ousmane Sonko dañ ko trahir te ña ko trahiroon ña ngay trahirante seen biir. yaa ngi gaaruwaale de. gaaruwaalu ma de <laughs> gaaruwaalu ma de boo bëggee ma tudd tur. Ah, lañ waaw yaa ma posé question. dama ne la lu tax duma ci xuus. mooy dama bëgg a respecté xale yi ma focus loo. Ah, waxal tur benn tur bi rek su fekkee su léegi da ngay wax Barthélemy moom nga posé. ak xalifa sàll ñoom ñaar ànduñoo nag Ousmane Sonko. ñoom ñaar seen digganteeg Ousmane Sonko ñaawul digg gannaaw bi. ñoom ñaar ñoom ñaar est-ce que mas nga dégg ci làmmeñu Ousmane Sonko mu wax ñoom lu bon. waaw ah, loolu laa wax léegi mais mas nga dégg nag ci seen làmmeñ ñoom ñu gaaruwaale Ousmane Sonko. xalifa Sall dem na fi ñu posé ko question mu ni du ma tudd kooku jeune le cite pas. non mais may ma non may ma est-ce que Ousmane Sonko boo ko posé woon question ci Khalifa Sall dana wax loolu. defal vaar nga xool Ousmane Sonko bi ñu génnee xalifa Sall bi ay nit day ñàkk a xalifa Khalifa Sall ban réaction la am donc Ousmane Sonko moom la ñuy trahir ñu defee ni naïveté la politique non non non du naïveté moom la ñuy trahir. léegi nag buñ ko trahiré ñoom ñoo ñu dajaloo woon nekk tudd xaw ma nan nuñ tuddati. xam nga def def seen <laughs> def seen i yëf ba yàgg ñuy xeex ci seen biir. xam nga luñ tuddati loolu. loolu <laughs> vraiment vraiment seen affaire la. seen affaire la mais man xam nga lan mooy sama sama ligne bu may waxtaanee. te bëgg ci dellu si waat mooy suñu leader le premier ministre Ousmane Sonko ban sénégalais moo mën a taxaw ni dafa trahir diw. ban sénégalais moo mën a taxaw ni dafa trahir diw comme mënuñu koo wax moi je suis tranquille pour le moment et j'avance pour su amul ba tey du am ah, dégg nga waaw bu la neexee bu la neexee nga seen nga seen weer wee ni dana fay bu léegi ci kanam waaye bu la neexee nga seen weer wi nga ni léegi mu